assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi leen di nuyu yéen ñépp di dellu di ziyaara jëmm yu tedd yu baax yi nga xam ni maasha allahu euh, ñoo bokk jotaay bi di dellu di sant yàlla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 ndax boo amee sang faw nga fexe xam lenn ci li ko yàlla dénk pour nga mën ànd ak moom bare na ku dem ba yàgg la mu yore dootu ci sawar li koy indi mooy dafa xamul fa mu war teg tànkam ak it kam ka seqal luy cëram ci wàllub yàlla ñun nag ki ñu am muy mawlaay cheikh ahmed tijani asharifu akbar mi nga xam ni dama koy faral di fàttali cheikh jugul di sàkku tariqa ni ko ñenn ci waa ahlu tasawuf di defe cheikh yonent bi moo ko jox kàddu bi nga xam ni pour képp kuy dund sa ngëneel ma nga ca kàddu bi nga xam ni mooy lumière bi lumière bi mooy tariqa tijaniya tariqa tijaniya nag bare na luñ ci xam mi ngi limité fii ci monde shahada ndax ñaari fànn ñaari fànn moo lal tariqa bi fànnu shahaada ak fànnu xaqiiqa am na ñu yàlla sedd ñuy jàngale ci fànnu shahaada bi tënku ci téere yi parce que téere yi dafa am ñu ko bind ñu ko bind li ñu xam ma nga ca seeni dënn la nekk seen dënn seen ruux moo ko sedde li ñu baaxee umma bi moom la bind ci téere yi li ñu baaxee umma bi moom la bind ci téere yi waaye ñi ko bind am na lu nu xam te mu nekk seen dënn ndax nag li nu xam yépp bind nañ ko wala binduñu ko loolu question boobu ñoom rek lañ koy posé moo tax toujours may wax ni kiy interpréter waxu jàmbur ba wax waaw lu tax euh, lii nu wax euh, sëriñ diw waxu ko woon ma ni ndax mission wam la parce que bu leen fàtte ni nitu yàlla yi lu ñuy bare bare ci tariqa bi kenn ku ca nekk ak sa mission kenn du ci dox mission jàmbur kenn du ci dox mission jàmbur li bu yi di bare bare ci tariqa bi kenn ku ci nekk ak mission am ku ci nekk nag lii sa mission yàlla dénk la ko jaarale ko ci yonent bi mu jaarale ko ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani loolu rek ngay jàngale waaye tekkiwul nag ni li nga jàngale loolu rek nga xam mën na am ni xam xam nga loo jàngalewul waaye bokkul ci sa mission pour nga jàngale ko ndax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ni zaman di dunde ci noonu lay sélectionné di tànn kenn ku ca nekk am na période bu mu la tànn pour nga am loo ca éclaircir moo tax léeg-léeg ma dégg ci internet ku poser benn question parce que man toujours dama leen koy faral di leeral nee naa leen su ma nekkul ci mission Cheikh Tijani yi ku ma woo téléphone di nga ma jot ku ma message dinaa la tontu ndax ñaanuma yàlla di tëju rek euh, ba taalibe yi ñu ci bari bëgg ay éclaircissement te duñu ko mën jote ci man li ñuy wax nag toujours ni jamono day dox te itam luñ la dénk-dénk mission nit rek nga mën nekk parfois empêchement day am parfois euh, message yi day bare ba doo mën tontu yëpp parfois appel yi day bare ba doo mën a jël yëpp parfois aussi foog nga am foo tëju nag ndax li ngay doxal ci zahir ak li ngay doxal ci xaqiiq bokkul waaw loolu mooy indi léeg rek ñu ni euh, message nga tontu wuñ la walla woote nga jotu jotu ñu waaye ñun nanguwuñu jàppe suñu bopp lu dul taalibe bu ñu sañoon ku ñu message ñu tontu ko ku ñu woo jot ñu waaw waaye li may faral di wax léeg li ma gis message internet benn nit laaj ni ndax secret tarixa bi war nañ ko waxe ni internet ma ni gis nga nit ñi léeg-léeg nu juge nit fàtte sa mission ndax war nañu tasaare secret tariqa bi ci internet ki jël weer dëkk ki jëlul wérd ki tijaan bi ku dul tijaan bi di ci jot ma ni loolu da ngeen koy posé Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani mi ma sant ma wax moom ngeen koy posé waaw question boobu kenn du ma ko posé xam nga lu tax ki ma sant ma wax di Cheikh Tijani Chérif wax loo ma lii may wax wan ma ko jàngal ma ko kooku la ñuy posé ndax war nañu wax secret bi ci tariqaam wala waruñu ko wax ci internet mais nin lu nu war mooy jotal mission bi loolu rek moo ñu war te itam tarixa Cheikh Tijani Chérif damay faral di wax ni nit ki def ci war dalal xelam xam nga lu tax boroom mi ngi fi Cheikh Tijani mi ngi fi nit ñi nag ñooy jàpp ni xëy na gisuñu ko nii ci bët ci wàllu shahada waaye mi ngi fi te lu nit di def ki gën tuuti ci ay xutboom mi ngi au courant te xutbu yooyu ndeysaan euh, liñ seen pouvoir doon yépp ci wàllub yàlla cër bi ñu am ci kër yonent bi cër bi ñu am ci kër Cheikh Tijani Chérif amul lu leen tëj ci shahada amul it ku leen tëj ci monde shahada loolu tax garanti Cheikh Tijani rekk am solo waaye man personnellement man Seydi Mouhamed El Cheikh personnellement li ma war a wax ci tariqa bi ak li ma war a éclaircir buñ ma posé question bi ndax war naa ko wax walla war naa ko denc nañ ko laaj ki ma wax loo di Cheikh Tijani jeex na waaw lu mu ca tontu rek nun ci loolu la ñuy d'accord te defe naa moo nu sant mission bi ni nu nanu ko doxal moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mu garanti ñu garanti boo xam ni moo ñuy superviser boppam dinu garde ba deux mille soixante quinze doo dégg mission bi échec te lépp ci barkeem lañ ko teg ndax nun xam nañu monde bi xam na xam nañu na muy doxee xam na nu nit système bi xam na nañu na muy doxee am na loo xam ni ku ko wax ñenn suñ la mënoon sàkkal pexe sàkkal la pexe te jaru ko nag waaye nun Cheikh Tijani mii nu wéeru mu dénk nu mission bi fii ba deux mille soixante quinze ku ne na xippi sa bët di xool dina gis nu di ko doxal te benn échec du ci am ci barkeem waaw. loolu nag éclaircissement la rek ndax ni may waxi toujours ni question yëpp mënuñu ko faral di éclaircir su ko defee ki ñu am te muy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani cëram ci wàllub yàlla dafa rëy ba toll noo xam ni. kenn mënu ko natt ci njàngale rek ngay dégg ñu ni cëri Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani takkal nañu ko euh, barzaqul maktum takkal nañu ko xatmiyatul maktum jox nañu ko katmiya bi maanaa wàll boobu yëpp rek pour definir lenn ci cëram la mais moom ni cëram toll ci yàlla dafay mel ni xaq qadrihi wa miqdaarihi al ni cëru yonent bi toll ca yàlla loolu yàlla rekk ko xam li nu ci jote cof nag ci lenn ci cëram mooy li nuy dimbali ñun taalibe yi ñun taalibe yi ñu mën ci am lenn ci wàllu xam-xam boo xam ni moo ñuy dimbali ci moom Cheikh Tijani ba nu am lu nu mën a apprécier ci tariqam ba am luñ ci mën a wax ndax loo xamul doo ci wax loo xamul doo ci wax mukk loo nekk lu nekk aussi pour nga gën ci sawar pour nga gën a xam dëgg-dëgg lan la il faut nga xam ci li ngay dund fan la la jële ak fan la la jëme lu jar di laaj la benn mag daf ko wax nee na euh, kuy zikr war nga laaj sa bopp fan la la zikr bi jëlee maanaam fan nga toll woon balaa ngay zikr ak fan la la zikr bi indi nga nekk ci présent waaye fan la la zikr bi jëmee ëllëg lu jar di laaj la te léeg nga gis nit mu yëngu ci tariqa di yëngu ci mouvement di yëngu ci lu ne waaye euh, mouvement bi àdduna bi rekk koy soxal du laaj mukk boppam lii bu ci deewee lan moo ko ciy fekk te lu jar di laaj la ndax kenn ku nekk eh, dina am bés nga wéet ak sa boroom boo xamul kañ la nag xamoo fan la nag war nga fexe toujours ba buy ñëw rekk mu fekk la ci lu neex yàlla lu jar di dimbali di dimbali sa bopp la su ko defee Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani su ñu doon résumé tey lenn ci li ko yàlla dénk mooy grade boo xam ni yonent bi moo ko ko takkal di gradu albardaqul maktum grade bi nga xam ni mooy symboliser xatmiyatul maktum maanaam moom Cheikh Tijani ni mu nekkee diggante yonent bi ak ruux yi diggante yonent bi ak xeet yi diggante yonent bi ak mbindeef yi diggante yonent bi ak képp ku yàlla bind muy xatmiyatul maktum nga xam ni lumière buy jóge ci yonent bi ci Cheikh Tijani lay jaar lumière buy dugg ci yonent bi ci Cheikh lay jaar loolu du man maa ko décidé man taalibe du Cheikh Alhaji Malick moo ko décidé du Cheikh El Hadji moo ko décidé du Baye Niass moo ko décidé du Cheikh Abbas Sall moo ko décidé loolu ku ko décidé mooy ki bind ñëpp di yàlla yàlla moo ko dogal yàlla moo ko dogal kenn décidé wu ko la ca Serigne kër si wax li yàlla décidé rek la baaba kër si wax kenn ku ci ne tagg na Cheikh Tijani mais tagg bi mu ko tagg amul lenn loo xam ni moom moo ko décidé rek ni naa ko wax sama kilifa déedéet. sa kilifa nu mu tolluwul jarul nga ci sonn parce que boo ci sonnee aussi te tolluwul noonu sa bopp rek ngay sonal moo tax ñoom kenn ku nekk lu mu bind ci Cheikh Tijani fekk na Cheikh ëpp loolu ñu bind pour ni nit ñi di dégge maanaam nit ñi mën dégg a tax nu bind waaye kenn ci taalibe Cheikh Tijani yi wala ci xut bu tariqa yi jëlul benn cër bu Cheikh amul mu wax ko ko déedéet cër yi ñu wax cheikh yépp fekk na cheikh dépassé na cër yooyu ñoom nag seen baax ak seen yëwan moo tax ñu yëkkati cër yi di ko wax pour lan pour taalibe yi jëriñu waaye fekk na cheikh Tijani ku ko xam xam ni bu ñu nee yàlla yàlla fal yonent bi indi ko troisième personnage légendaire bi nga xamee ni lépp luy lumière ak kéemaan ci loxoom lay jaar cheikh Tijani la xam nañ ni loo ko waxati xat mi yëbee ko ëpp xam nañu ni loo waxati Cheikh Tijani xat mi yëbi moo ko ëpp ndax lumière buy dugg ci yonent bi ci moom lay jaar lumière buy génn ci yonent bi ci moom lay jaar moo tax xaqiqatu muhammadiya kenn du ko miine kenn du ko miine ci téere ci kurus lañ koy miine te pour nga miin ko ci kurus foog nga nangu di zikr ba noppi zikr bi tegu ci yoon maanaam nga xam li ngay zikr lan la ndax bari na ku yor kurus te li muy wax sax maîtriser wu ko bari na ku yor kurus te li kurus di jëriñ xamu ko te lu ne daf koy jëriñ waaye boo bëggee miin xaqiqatu muhammadi il faut nga zikr boo zikree ba noppi am lumière soo amee lumière nag liy refléter lumière bi mooy xol bu rafet bi ngay àndal xol bu rafet bi ngay àndal mooy refléter lumière bi nitu yàlla day rafet xol nitu yàlla day yaatu xol nitu yàlla day yéene ñëpp jàmm nitu yàlla euh, kenn ku nekk ku toll ci jaaxle daf ko war a gindi nitu yàlla dafa war a suufeel boppam di yëkkati nit ñi ndax li Cheikh Alhaaji Umar wax nee na ki yéeg ba noppi soxlootul yéeg wàcc la soxla ki yéegagul rek ay soxla di yéeg kon gis nga yooyu mooy jukko yi Cheikh Tijani nam mu ci ñun ñun taalibe yi war na nañu fexe nag ba jukko yooyu mu namm ci ñun suñ ci amul yëpp yit ñu am yenn yuñ ca am looloo tax suñu ñëwee ci barzakul maktum barzakul mooy cëru xat xatmiya bi nga xam ni moom la yàlla décerné Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ba nga xam ni képp kuy wëliyu ak foo mënta jóge ci xeetu wëliyu boo mënta bokk ak loo mënta revendiquer ci àdduna ci cër ci bërëbu lumière u Cheikh Tijani lañu la tabbe ci bérébu lumière am lañ la tabbe jot nañ ci ci xayb seede yu dul jeex du xaaj waaw waaye li ñu li ñu ñor mooy wax li nu am nun nun ñiy dund ci tariqa tijaan ya nekk taalibe lu nu am loolu moo ñu ñor waaye li ñu jot ci seede ci ay nitu yàlla yu mag ñu wax ko ci xay xayba seede ko ci Cheikh Tijani Chérif ba ci kenn ci ñoom ku ci wax ni li ko li ko yóbbu gradu xutbu zaman mooy sopp bi mu sopp Cheikh Tijani ci leeru cofeel la ko jaare ci leeru cofeel la ko jaare te enregistrement yi may wax yëpp soo demee xadaratul ilaahiya ba mag ñëpp ca yam danga ko fay dégg danga ko fay dégg parce que nitu yàlla yaa ngi fii ci Sénégal ñi ngi fii ci àdduna bi ku yëkkati kàddu ku nekk xam nañ li nga wax lan la enregistrement yi yëpp mën nga ñu stocké ca xadaratul ilaahiya ba te ay nitu yàlla yu mag ñoo ko sedde ci Cheikh Tijani li waral nu seede ko mooy xadaratul ilahiya xam naa sax dinañ ci ñëw def ci waxtaan spécial ndax tey leneen moo nu yëkkati ni muy fonctionner bokkul ak ni mondu shahada di fonctionner ndax mondu shahada ci àdduna ku mu neex toog weddi cëru ku la neex waaye xadaratul ilahiya na muy fonctionner mooy à partir ca axtaab ya ba ci xutbu zamaan yi ba ci labdaal yi ma mafatihul kunus yi xaw su kenn ku koy présider ku nekk faw nga nangu sa cëru supérieur soo ko nanguwul dootoo dem soo ko nanguwul dootoo dem looloo tax képp ku ñu tabbu ci lumière u Cheikh Tijani même bu ñëwee ci àdduna revendiquer leneen dina dina toog ca xay ba seede ni cëru Cheikh Tijani toll ak lu tax nu nàndal ko ca ak ngërëm gi nga xam ni moom la moom lay tudd jëme ko ci ki nga xam ni moo jiita ñëpp ci wàllu bi yàlla ginnaaw yonent bi te di Cheikh Tijani Chérif looloo tax cërëm bii nu tuddee barzaqul maktum cër bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani moom la takk comme grade ñëwee ci àdduna ci monde shahada tabbu wali yëpp sans exception jël ñaari ndëggu tànkam tekk ca wëli yi ñu njëkk bind ba bu àdduna dee tukki amul benn wëli boo xam ni du Cheikh Tijani jëlul lu dul Cheikh Tijani jëlul ñaari ndëggu tànkam tekk sa ñaari mbagg ndax moo ko waxal boppam te nam ko waxee noonu la ame ni yonent bi rawee yonent yëpp noonu la Cheikh Tijani Chérif rawee xut bu yëpp ndax mooy xat mi xatmiyatul maktum barzaqul maktuum muy ni mu nëbboo ni mu nëbboo ba am ñu ko jiitu ci shahaada te mu jiitu leen ci xaqiiqa mooy ni yonent bi nëbboo ba aadama alayhi salaam jiitu ko ci shahaada te mu jiitu ko ci xaqiiqa nga topp lumière dem dem dem ba diggante yonent bi ak Cheikh Tijani dootoo ci xàmmi kii ak kii waaw seen lumière benn la seen lumière benn la yonent bi moo ko tarbiyal boppam def ko mu doon doomam xàqan ci wàllub lumière ci wàllub deret ci wàllub xilaafa mu représenté lépp moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani lumière boobu nag ñu jox ko muy barzakul maktum Cheikh Tijani daf ko séddale ñaari fànn benn fànn bi mooy grandeur spirituelle am na mu toll moom cheikh ni mu toll ba kuy wëli xam ni cheikh Tijani Chérif moo la tiim beneen bi mooy mu wax yàlla te yàlla nangul ko ko mu jël gradam bii di barzakul maktum soppil ko ko ëllëg defal ko ko mu doon yiw ci ay taalibeem gradu cheikh Tijani Chérif bii di barzakul maktum cheikh dafa wax yàlla ni ko mu jël garaadam bii di barsakul maktum soppil ko ko defal ko ko mu doon ay yiw ëllëg àllaaxira ci ay taalibeem ci la yàlla jël grade bi valeuru grade bi grandeuru grade bi pureté grade bi yàlla soppil ko ko defal ko ko mu doon aljana mu may ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani aljanaam boobu la ñuy tuddee barzaqul maktum moo tax gis nga léeg-léeg nga dégg nitu sharia buy wax naan aljana de eh, ku ne yaakaar nga cay am fekk na am na ci xay bu ñoo xam ni seen yitte sax du dugg aljana seen yitte leneen la parce que bu doon dugg aljana rek bi leen yàlla garantie aljana du tey te loolu saxaaba yi dund nañ ko ci monde shahada yonent bi toog wax ni fukk yàlla dugal na leen aljana te ñu ngi ci monde shahada di dund waaw teewul ñu continuer jaamu yàlla teewul ñu kontine nekk ci lañu ñu nekk Cheikh Tijani gradam bii di barzakul maktum noonu la ko ko yàlla defal daf ka ko soppil muy yiw mu defal ko ko aljana placeel ko ko ca biir illiyin ca biir illiyin la ko placeel soo demee ma ngay éclairer ñu ñu clôturer ko clôture boo xam ni eh, clôture la bu weex palais yi nekk ci biir résidence yi nekk ci biir lépp nekk ci biir lépp nekk ci biir boo dee taalibee taalibe laay Cheikh Ahmad Tijaani soo génnee àdduna lu tax doo paase lu ëpp deux heures de temps ci bàmmeel su dee taalibe bu ñu nangul nga dès l'instant que nga génn àdduna nu ni dog na nu denc la balaa ñaari waxtu ci suñu waxtu shahada yi nga di ko passé ci biir suuf cheikh ñëwal boppam ndax am na ñu muy am na ñu muy jël am na ñu muy jël cëru boppam ñëw am na ñu muy yable ñu jël si la malaayika yi delloo sa ruuxu ñu jàpp sa loxo ba biir barzakam boobu nga xam ni fa lay teralee gaayam ya mu dugal la fa nga nekk ci teraanga yi ba àdduna di tukki bu àdduna demee ba tukki quarante jours rek quarante jours rek ngay tëdd ci lal nelaw ko yeewu ñu ni yowmal qiyaam taxaw na loolu barzaqul maktum la am da ngay dund ci monde shahada laa wax nekk taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mu nangul la sa taalibe nga dem ba génn àdduna su ñu la dencee ci biir bàmmeel te benn ba ci jiitu mooy génn àdduna bi day woyof tiijaan buy dem ni ruuxam di woyofee buñ koy buñ koy rocci day mel na euh, mbuusu ndox munu sol rek di sotti ndox mi du yëg métit ca ruuxam du yëg métit ca ruuxam li ci des yëpp nu naan feebar nag euh, fa sibbiru nañu ko yóbbu ci médecin bi euh, procesusu su shahada la processus su shahada rek la moo tax léeg-léeg nga dégg kuy wax yonent bi bi mu tolloo ci sukuraat euh, mettit ba su ko defee nit ña jaaxle ma ni gis nga ku yóbboo rek jaaxle sa bopp ndax yonent bi éducateur la li mu bëggoon a jàngale mooy ruux bu ñoo rocci su àndul ak yërmande yàlla rekk borom sonn te defe naa bu dee yërmande yàlla yonent bi moo ci jiitu kon li muy wane noonu daf ko bëgg rek wan nit ñi pour ñu góorgóorlu waaye ku xam yonent bi nag xam ni luy metti ci biir yaramam amul waaw lu ne nag néew néeg na ko wane pour delloo si nit ñi ci yàlla looloo tax ki bokk ci tariqa ya jël wéer duñu nangul ko moment bi muy dem bay génn àdduna suñu ko nangulee taalibeem ruuxam niñ koy jële jël bu woyof lay doon su demee ba nelaw nu denc ko ci bàmmeel bi du passé deux heures de temps laa wax deux heures de temps du ko passé te Cheikh Tijani ñëwalul boppam wala mu yable malaayika yi ñëw fekk ko fa mu nekk ca xabroom jël si ko delloo ko ruuxam solal ko yére bu weex tàll demi saison bu weex jàpp ci ay loxoom yóbbu ko ba mu gis këru lumière buy buy rayonné ñu tijjil ko porte yi mu dugg ñu wan ko fauteuil yi wan ko appartement am wan ko ay mbokk taalibeem ya fa nekk mu ànd ak ñoom di wasifa ak ñoom di def ak ñoom ànd ak ñoom ca neexit yi bu ñu demee ba ñu ni àdduna tukki na fii ci monde shahad jour bi àdduna di tukki jour boobu kese la ñuy tëj barzakul maktoum pendant quarante jours moom la ñuy nelaw suñu nelawee quarante jours suñu yewoo ñi ngi jàkkaarloog écran yi ñu ni yowmal qiyaam door na bu yowmal qiyaam jeexee Cheikh Tijani transféré barzakul maktoum nu dugalaat ko ci biir illiyin ci place yi gën a luxe taalibeem yi dellu dëkk fa te lii ma la di lii ma leen di wax lu amul benn werante la waaw ndax dañu ko xam am lu ñu ci Cheikh Tidiane Chérif wanal boppam su ko defee nag gis nga boo jàngee téere yi kese ba pare bëgg weddi dina am loo dul xam te toujours mi ngi sa kanamu bët dinaa leen nettali benn benn genre anecdote sax laa koy tuddee ndax sawaruma di ci nettali yu bare mais pour rek euh, delloo si waat ñu bare ci taalibe yi comme man ñu xam ni lii mag ñi yàgg duñu wax lu am la dafa am benn bés benn dëj am ñuy denc benn néew ca armeelu ceem yële ku dëkk ndar xam nga fi ceem nekk ci côté géej ga mu am benn mbokk mu yaayam génn àdduna ku ko bëggoon vérifier sax Euh, mbokk mi mu ngi tudd Alioune Fall mu ngi dëkk Fass Ngom bii di dëkku Cheikh El Hadji Ngom yaayam ma nga dëkkoon fële ca kaanoor kaanoor ku nekk Saint-Louis xam nga ko mooy fi ñu daan defee jàngu Serigne Babacar Sy bi yaayam génne àdduna mu téléphoné ma le matin yëgal ma ni yaayam dafa génn àdduna ma laaj ko fu ñu koy robe ndax man mësuma gis yaayam ci sama dund ma ni ko fu ñu koy robe mu ni ma armée lu ceem ma ni ko 11h dinaa fa agsi bi 11 jotee ma agsi ci armeel yi ñu taxaw ñuy waajal yaayam ñu waajal ko ba pare di ko denc ma masuma gis yaayu Alioune Fall ci shahada xaw ma ko sax ma gis bi ñu demee ba koy dugg bëgg dugal ci biir bàmmeel bi rek ma séen sëriñ Babacar si jóge ci asamaan si wàcc bi sëriñ Babacar si wàccee may xool pare gu ma seen Cheikh Tijani wàcc mook sëriñ Babacar si ñu jàpp ñu jàpp jigéen ji jàpp jigéen ji di soxna si dugal ko ci biir bàmmeel bi ñu maasale ma gis bi ñu maasalee Serigne Babacar si duggaat ci biir suuf si topp ko ma gis Cheikh Tijani duggaat ci biir suuf si ma yéemu ma dal di xëcc loxo oustaz Alioune Fall taxaw fële ni ko waaw yow sa yaay ku doon wasilaam mu ni ma mësul gëm ku dul sëriñ Babacar si ma ni ko gis nga li mag ñi wax ñëpp dëgg la xam nga ñu bari ñu ngi wax sa wasila moo lay teeru ñenn ñi weddi ko ni kenn mënul teeru kenn mëni mëni ko sëriñ Babacar si léegi laa ko séen mu wàcc ci ñi jàpp jigéen ji denc ko ci la bokk bi ñu dencee jigéen ji dafa soobuwaat dugg ci biir suuf ànd ak Cheikh Tijani kon mooy wane ni moom bu dee sëriñ Babacar si la gëmoo nit loolu naxu ko nii laa ko gisee billahi lazi laa ilaha illa nii laa ci tegee bët te mësuma xam maire bi mësuma xam sax silsilaam ak fa mu bokk waaye nii laa gisee sëriñ Babacar si wàcc ci asamaan si taxaw ci armeel yi ñuy jàpp jigéen ji mu bokk ci ñu ko jàpp ñu denc ko mook Cheikh yi ñu ànd ak moom sóobuwaat ci biir suuf dem seen yoon te wóor na ma ni yóbbu nañ ko mag maktum kon ku am wasila bu ko mot kay moom jooyul dara bu ko motul moo tax muy wax waaye gis nga loolu benn parenthèse la woon waaye aljana bii di aljana Cheikh Tijani te di barzakul maktum soo fa demee huit station la huit station la am station numéro un bu njëkk bi moom la ñuy tuddee almaarul ifaya deuxième station bi moom la ñuy tuddee al uruful baaqiya troisième station bi moom la ñuy tuddee alxistil maaruuf quatrième station bi moom ña ngi koy tuddee alruhbaniyatu salaam cinquième station bi moom la ñuy tuddee alfathul miftah sixième station bi moom la ñuy tuddee al anwaar al firdaws septième station bi moom la ñuy tuddee al bishril uluf huitième station bi di dernier bi moom la ñuy tuddee al madinatu nuur station yooyu ñu tudd benn bu ca nekk moo ëpp sunu àdduna bi nuy dund dix mille fois maanaam fukki junni ci ay yoon station yi ma tudd laa wax ca barzaqu Cheikh Tijani benn bu nekk moo tudd moo ëpp sunu àdduna bi nuy dund dix mille fois waaye benn bu ca nekk aussi dafa am ñu fay dund moom laa bëgg éclaircir gis nga station numéro bi ñu tuddee almaarul ifaaya soppe Cheikh Tijani yi ñoo fay dëkk buñ ne soppe Cheikh Tijani yi gis nga su fekkente ni eh, même beneen tarixa nga bokk wala amuloo tariqa amuloo tariqa ni ko ñu bari di waxee léegi léeg nga dégg nit rek mu ni man gëwuma ku dul yàlla ak yonent bi soxlawuma tariqa ma ni ñun ñii ñun ñii di taalibe Cheikh Tijani gëmunu ku dul yàlla ak yonent bi waaye soxla nañu Cheikh Tijani xam nga ñiy wax soxlawuma tariqa ñoom ñoo ñoom ñoo sonal seen bopp dem nañu ba ñu ni ñii ñu tuddee kilifa diine ña ca bare duñu royukaay ma ni ña ca bare ngeen wax waaye waxu leen ba léegi ñëpp parce que am na ñoo xam ni fa ñu teg seen tànk ba léegi mooy fi ko yonent bi tegoon am na ñoo xam ni enseignement yi ñuy yi ñuy joxe bu yonent bi ñëwaatoon léegi enseignement yooyu lay joxe am na ñoo xam ni ni ñuy dimbalee taalibe bi wéeru ci ñoom su fi Cheikh Tijani Chérif nekkaatoon léegi ci shahada ñu koy gis noonu lay dimbalee taalibe bu wéeru ci ñoom kon ñëpp yamuñu am na nag ñu mbubboo rek tur ba wala mbubboo sant ba te di def la leen neex waaye nag bu mu tax kuy sunni yin rek wax ni eh, du ma nekk ci tariqa bu la neexee bañ nekk ci tariqa waaye nun yàlla la nu gëm yonent bi suñu kóllëre la moom la ñuy noyee waaye Cheikh Tijani Chérif ay sunu lépp waaw parce que bu dul woon moom dara ci yàlla dunu ko am waaw te itam kenn mënul ñëw critiquer mag ña ba fekk yaa leen raw ci téere wala ci xam-xam kon ku yóbboo delloo si sa xel bari na kuy critiquer mag ñi te téere yi mu tënku bi ko mag ñi mokkalee du tey kuy critiquer mag ñi dimension yi mag ñi àgg boo fa àggoon da tal leneen lu dul di leen critiquer ndax mag ñi kenn mënu leen raw kon ku yóbboo rek am yar e, te am yàqiin nit ñi nga xam ni ñooy véhiculer message yu lumière ya sauver nit ñi rek moo leen tax a jóg mais leneen taxu leen jóg looloo tax boo bokkul ci tariqa ya nga nekk ci beneen tariqa walla nga ni yow doo nitu tarika waaye fekk sa xol boobu sopp Cheikh Tijani ma nga ca maanaam fekk sopp nga Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani gis nga li Cheikh Alhaaji Malick wax sopp Cheikh Tijani rek def na nit wali wax na dëgg boo deewaalee cofeel googu ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dootum rànke dootum rànke ndax boo duggee sa bàmmeel Cheikh Tijani Chérif dafa yabal malaayika yi ñu ñëw jël si la waaye bii ci wàllu ruux lañ lay jël see maanaam buñ ne ci wàllu ruux mooy du ñu delloo si nit ki du ñu delloo si nit ki à l'état d'éveil maanaam ñu delloo ko jëmmam mu yeewu di dox déedéet dañuy jël ruux ba ni ni ba jóge ci yaramam noonu la ñuy jëlee ruux ba moom maanaam mi ngi des ci xabru ba di nelaw mais dañuy jël ruuxam yóbbu ko ci bërëb bi nu tuddee almaarul ifaaya béréb la boo xam ni boo demee ay étagère ñoo fa ne étagère yoo xam ni benn bu ca nekk soo fa duggee li ngay sentir comme ku dugg ci salle climatisée parfum yi di la xeeñ béréb bu rafet ñu jël ruuxam comme moom ruuxam soppoon na Cheikh Tijani waaye jotul woon bokk ci tariqa bi Cheikh Tijani day sant malaayika yi nu dem ca xabroom jël fa ruuxam dal di koy laxas ci benn morceau percal bu rafet ñëw bëti étagères yi nga xam ni li ko tiim dafa mel ni ay climatisation la ndax atmosphère ba na mu bindoo ci wàllu neexit ci wàllu yaram ñu teg fa ruuxam ruuxam di di ca féexlu ruuxam di sa féexlu te xam nga lu ko may sopp Cheikh Tijani kese fekk engagé wul woon ci tariqa bi sopp na Mawlaana Cheikh Ahmad Tijani deewaale na cofeel ga fekk jotul woon jël wérd jotul woon bokk ci tarixa tijani waaye gis nga cheikh ci aljana ba mu am ca barzax terale na ko ni malaayika yi nu ñu jël ruuxam ñu jël ruuxam ñu indi ko teg ko ca béréb ya nga xam ni moom la ñu climatisé ruuxam tegu fa su fa ruuxam tegoo nit ka fa mu tëdd ca bàmmeelam day sentir ni mi ngi à l'aise dafay féex dafay yëg ni mi ngi ci jàmm noonu lay continuer ba àdduna di tukki noonu lay continuer ba yowal qiyam noonu lay continuer bu dee cofeel ga dëgg la ca moom ba muy dugg biir aljana ndax cheikh kenn du ko sopp kenn du sopp cheikh Tijani Chérif cofeel ga di dëgg ci yow ba pare ngay dugg safara loolu amul loolu amul kenn du sopp Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani cofeel ga di dëgg ci yow ngay dee di laq waaye gis nga li ma mën a waat ci alxuraan képp ku contre Cheikh Tijani Chérif ak loo jëfati ci lu baax dara mënul tee ba doo dugg jahannam amul ñun nag décider wu ñu ndax léeg-léeg nit wax nu ni xanaa mooy décider wala moom dañ leen wax li ñu xam li ñu leen wax dañu ko xam dañu ko dund bañu ma nag ku ko weddi ndax ku ko weddi aussi sonn lu luñu l'essentiel daal li nu xam dinañ leen ko wax ku mu neex nag weddi ku mu neex weddi ku ne am nga droit weddi lu la neex ku gëmul Cheikh Tidiane am nga droit wax lu la neex waaye nun li ñuy wax fu ñu toll ñu xam ko fu ñu toll ñu dund ko dinañ ko jagleel ñi nga xam ni bëgg nañu jëriñu kenn du bëgg Cheikh Tijani bëgg ba di dëgg ci moom ba pare muy laq waaye kenn du contre Cheikh Tijani contre ba des ci xolam muy dugg aljana amul ku ko yaakaar wala fu nga fokk wala nga tekk ci téere xamoo Cheikh Tijani kan boo ko xamoon di nga ko moytu lool waaye boo ko xamoon aussi di nga ko sopp lool looloo tax ñiy dund te fekk sopp nañ ko seen ruuxu noonu la ko Cheikh Tijani di teralee ca biir barzaqam ba dañ leen di yóbbu ca béréb ba ñuy tuddee almaarul ifaaya fa la ruux ya di dund ba àdduna di tukki muy station numéro un ba deuxième station bi nga xamee ni mooy al uruful ya foofu xam nga ruuxu ñan lañ fay yóbbu mooy ruuxu ñi amoon yéene ñi amoon yéene jël wérd te jotuñu jël wérd ba génn àdduna ndax amuñu woon occasion bi ñi amoon yéene moo tax bi sëriñ Babacar si di wax mu wax ci ñi am yéene jël wérd maanaam ñi ni rek bëgg nañu jël wérd mu wax na seen cër toll ñi wax suba la ñuy jël wérd mu wax na seen cër toll gis nga ki am yéene jël wérd am yéene nag bu ñu ko waxee maanaam kenn mënul nax yàlla am yéene mooy ki décidé ni bëgg naa jël wérd Tijane waaye yàlla def na malheureusement aw ma benn occasion bu ma gisee mu xaddam boo xam ni dana ma jox wérdi bi wala ma am benn occasion bu ma mënee par exemple fekk nekkul ci réew mu mu nit toog di joxe wérdi ba pour ma mën a jote ci nit kay joxe wérdi ba wala mu ni am naa yéene waaye gisaguma ku ma doy mais nekk ci yéene boobu muy muy muy muy lu dëggu ci moom yéene ba di lu wóor ci moom yàlla dogal mu dem ba balaa muy jël wérde ba faf mu génn àdduna mais mais Cheikh Tijani yëg ci xolam ni kii su dundaatoon tuuti jël wérde bi ndax yéene woon na ko ci xolam même kooku Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani du ko bàyyi mu tum rànk mën koy yóbbu ca bérébam bu ñuy tuddee al uruful baaqiya muy deuxième station bi nekk barzakul maktoum waaye moom it ruuxam lañ fay yóbbu bàyyi fa ruuxam mu tëdd fa di dallu lam fay sentir mu koy sentir ca ca fañ ko denc ca xabru bañ ko suul te du fa sentir lu dul jàmm du fa sentir lu dul féex du fa sentir lu dul dal te gis nga ku xam barzak ku xam barzak ak metit ya fa nekk ak mbëggalu bàmmeel yu tar la suñ la waxee ni eh, boo nekkee ci béréb bii di nga dal di nga fexe ba def le tout pour nekk ci béréb boobu ndax barzak la fay mbugal la fay mettit la fay tumranke kenn xamul na mu mel bari na ku nekk ci àdduna bi lu ko neex mu wax bu ñu ko wanoon barzak benn guddi bu dellu see dina xoolaat dina xoolaat boppam xam ni dund bii du dund buy wéy ba faw xam ni day geex te li rag lu fële kenn xamul na mu toll looloo tax ki am yéene jël werd bi yéene ba di dëgg ci moom ba mu deewaale yéene ba Cheikh Tijani day sant malaayika yi ni nañ ko jële fa mu ne indi ko indi ruuxam ca am ca xay ba barzaqam ba euh, di al uruful baaqiya station boobu di deuxième station ca mag maktum fa la ñu yóbbu ruuxam troisième station bi di al qistil maaruf al qistil maaruf lu am solo la pour ma éclaircir ko donte bëgguma waxtaan bi gudd gis nga al alqistil maaruf xam nga ruuxu kan lañ fay yóbbu ci barsaxu Cheikh Tijani yi la bokk mooy ruuxu ki nga xam ni jël na wérd ci muxaddam boo xam ni amul ndigal dafay jaaxal nit ci tariqa bi gis nga nit mën nga jël wérd ci ko amul ndigal joxe wérd bi parce que nit mën na ñëw ci yow wax la ni hijaasaam mi ngi nii léegi dañu ko dañu ko def muxaddam fekk ki ka def mu xaddam sax ki ka def mu xaddam même moom ci boppam amul droit nekk mu xaddam dafay am léeg nga gis ku ku joxe wird te xamul sax Cheikh Tijani mooy kan nga gis ku toog di joxe wird te moom ci boppam amul cofeel ci Cheikh Tijani léegi nag li yéeme mooy kooku kooku la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di joteel maanaam kooku di joxe wird ba mooy joteeg Cheikh Tijani mais taalibe bi mu jox te taalibe bi moom amoon yàqiin amoon yaqin ni kii war na mën a joxe wérdi bi amoon yaqin ni kii am na am na am na yoon bu wóor bu ko permettre mu mën joxe wérdi bi amoon yaqin ni kii am na cër joxe wérdi bi taalibe bi jël ci moom wérdi du ci dara ndax xamul ndax dañ ni na nga xool ku wóor waaye ku wóor yàlla rek ku ko xam la nga mën rek mooy rafet njortu léegi taalibe bi rafet njortu ba jël wérdi bi moom muy pratiquer wérdam Euh, jokk na ci koo xam ni amul ndigalu joxe wér su boobaa yiwam ci tariqa bi moom taalibe bi day wàññeeku am na grade yu bari yoo xam ni dañ koy jox ku nekk ci tariqa bi ba mu ma nekk wëliyu di présider xadaratul ilahi soo jëlee wér di ci ko amul ndigal doo mën a àgg ci ci grade yooyu waaye nag di nga mën a am yiw ndax yow njort bu rafet rek nga amoon léegi yiw boobu ngay am soo dundee soo dundee ci tariqa bi ba génn ci àdduna ñu ngi lay yóbbu ca troisième station ba ñuy tuddee alxistil maaruuf fa ngay nekk moom it station bu neex la waaw waaye sa ruuxu lañ fa yóbbu maanaam mooy dañ lay bàyyi ngay nelaw sa xabru ñu yóbbu la ca béréb ba boole la ak si jëmbu teg la ci lu mel ni matelas matelas matelas yoo xam ni ay garabu pom ñoo ko tiim ak ay dex yu dox ci wetu matelas bi pom yi di la ëpp garabu pom yi di la upp seen xob yi di la upp nga tëdd di nelaw ba àdduna di tukki waaw ndax jël nga wér di waaye soo demee ca barzak duñ la bàyyi ngay manifester sa jëmm nam la neexe dañ lay limité ndax lu tax ci ki nga jële wérd bi amul ndigal joxe wérd bi waaye yow amoon nga yàqiin ni moom am na ndigal joxe wérd bi nga dem tàllal sa loxo mu jox la wérd nga jàpp ci wérd bi respecté condition yi waaye gis nga day wàññi sa dëgër ndax ñu ngi lay yóbbu ci troisième station bi di alxistil maaruuf fa ngay tëdd fa ngay nekk nekk ci jàmm ba àdduna di tukki booy dugg aljana nga dugg aljana waaye fa la la Cheikh Tijani di yóbbu quatrième station bi nga xam ni moom la ñuy tuddee arruhbaniyatu tal salaam arruhbaniyatu salaam kooku ñi jël wér di lañ fa yóbbu muy quatrième station bi ñi jël wér di di pratiquer wér di bi waaye buñ koy pratiquer mooy maanaa ñi ngi toog seen néeg di lazim toog seen néeg di wadifa seen néeg la ñuy defee xadaratul jumaa waaye du ñu dem ci mbooloo mi du ñu dem ci mbooloo mi ñoom kese ñooy wasifaal seen bopp suñ nee nag duñ dem ci mbooloo mi waxuñu ku nekk Europe ci place yoo xam ne amul foo daje ci benn kër wala ci benn jotaay pour def wasifa bi ci mbooloo ndax wasifa bi ci mbooloo mooy mooy ngëneel gi gën ka taalibe Cheikh Tijani Chérif bu nekk ci tariqa bi war ko mën def suñ nekki dul dem ci mbooloo mi mooy ki nekk ci këram jàkk ji nekk nii wala benn béréb bu taalibe Cheikh Tijani yi di daje di wasifa di xadara nekkee nii mu ni du fa dem maanaam mooy rek koo xam ni daal dafa woyofal dundam daal di toog ci néegam di wasifa wasifa di wér di wér dem waaw du dem fenn amul benn ngànt aussi bu ko bu ko permettre mu bañ a dem ca mbooloo ma mu toog rek lank ni du dem ca mbooloo ma dinañ ko nangul wér dem ndax mi ngi wér dinam ko war a defee waaye bu génnee àdduna Cheikh Tijani day sant malaayika yi ñu jëli ko ca barzak yóbbu ko ca quatrième station ba ñuy tuddee ar ruhbaniyatu salaam ar ruhbaniyatu salaam nag boo fa demee moom tam euh, béréb la bu yaatu boo xam ni fu la neex mën nga fa dem njoowaan yaa nga fa euh, yi ñuy lekk nga fa table yaa nga fa lépp ma nga fa waaw soo fa demee da ngay nekk ci jàmm euh, nekk ci lu la neex di ci dund di ci dundu ba àdduna di tukki su adduna tukkee nga bokk ci ñu nelaw 40 jours boo boo dekkiwaatee it boo ci jugee aljana nga jëm waaw loolu mooy bërëb bi nga xam ni mooy quatrième station bi di ar ruhbaniyatu salaam léegi nag ñi nga xam ni ñoom dañuy wérd ñu jël wérd maanaam jël wérd ci ko am ndigal joxe ko ba noppi di wérd maanaam bu mbooloo amee ci wasifa ñu dem fa bu mbooloo amee ci xadaratul jumaa ñu dem fa bu laazim jotee ñu def seen laazim ci waxtu bi respecté condition tariqa bi ak charte yëpp ñoom bu ñu génnee àdduna Cheikh Tijaan yi ngi sant malaayika yi ñu jële leen ca barzak yóbbu leen ca bërëb ba ñuy tuddee alfatuhul miftaax alfatuhul miftaax nag ku fa dem moom doo nekk ci wàllu ruux rek ngay taxawe ci wàllu jëmm ngay taxawe maanaam malaayika yi lay jël si sa bàmmeel dañu lay delloo sa ruuxu sa jëmmu jóg nekk na mu meloon ñu yokk su fekkee ci feebar nga génne woon àdduna ñu wéral feebar ba su fekkee bi ngay génn àdduna demoon nga ba perte pois ba jeex ñu delloo la sa pois def la nga nekk nit ku rafet nga dellu si waat ñu ànd ak yow ànd ak yow ba béréb ba bërëb boo xam ni béréb bu rafet la nu di ko tuddee alfathul mifta mooy cinquième station ca barzaqul maktum ñu dugal la ca suñ la ca dugalee nag daa fa fekk ay xuurul ay nin muy soxna yàlla yàlla denc nam ko waxee ca alquran huurul maxsuuratun fi lqiyam lam yatmishunna insun qablahum wala jaan ñu jox la ay huurul ay nin jox la ay appartement jox la ay béréb jox la ay voiture de luxe nga nekk ci barzaqu Cheikh Tijani ca al miftahul al fatuhul miftah di cinquième station ba ca barzaqul maktum di dund nam la neexe di dund nam la neexe fruit bu la neex lekk te loolu li la may mooy jël wérd ba noppi respecter condition tariqa bi bi nga xamee ni nag mooy sixième estation bi di al anwaar al firdaws wëliyu tariqa bi ñoo fay dund wëliyu tariqa bi nag bu ñu ko waxee faw moom it mu laaj éclaircissement ndax wér di Cheikh Tijani Chérif boo ko xasee ba jël nekk nga wëliyu ba pare looloo tax dafa may jaaxal ndeysaan su ma gisee taalibe Cheikh Tijani Chérif bu xamul boppam xamuloo ni boo jëlee wérdi bi boo jëlee wérdi bi respecté wazifa respecté xadaratul jumaa di def sa lazim ñu nangul la wérdi bi nekk nga wëli yu dèjà léegi kay li des mooy def a tarbiyatu ruuhu ba mën présider xadaratul ilahiya ba moo des waaye nekk nga wëli ba pare koo gis mu ni mi ngi wérdi ci tariqa bi waaye nekkul wëli mooy wane ni benn respecté wul wérdi ba wala nanguwunu wérdam soo respecté wul wérdi bi nag yaa tooñ sa bopp lii tax nag du nangu sa wér du yaa koy def Cheikh Tijani bëggul kuy caaxaan Cheikh Tijani bëggul kuy wax lu dul dëgg Cheikh Tijani bëggul kuy dox ci ci sabotage waaye li mu gën a bañati li mu gën a bañati mooy ku respecté wul wëli ci tariqa bi loolu la gën a bañati moo tax ma ni fu ngeen gisee kuy xuloo kuy xuloo ci tariqa bi ca diggante Serigne Babacar Seck ca digganteeg eh, Baye Niass ak ca digganteeg Cheikh El Hadj Malick ak sa diggante Cheikh El Hadj Oumar ak sa digganteeg Cheikh Abbas Sall ak ku ngeen déggati mu cay xuloo daw leen bu leen fa sax taxaw di werante bu leen ci dugg bu leen ci werante koo dégg ca mag ña hormaalal waxal ci moom lu baax koo dégg ca mag ya waxal lumière am te am ca lumière am li ci des sa yoon nekku ca taalibe bu bëgg yàqu rek ay dugg ci diggante yooyu di wax bu leen ca werante lu ma ñaan sama bopp la ñaan leen ko ku ngeen déggati laa wax muy wax ci diggante Serigne Babacar Sy ca diggante Baye Niass ca diggante Cheikh El Hadj diggante Cheikh El Hadj Oumar ca diggante sëñ Abbas Sall Thierno Seydou Nourou Tall daw leen foofu lu ngeen fa mënul wax ci lu baax maandu leen ci. taalibe bu ëpp fit ci taalibe yi Cheikh Tijani nee na mooy taalibe bu toog taalibe bu toog xool ni xutboom yi toll muy jël garaatu xutbu yi di sànni ci suuf. te loolu xam nga mooy lan mooy werante jaru ko jaru ko moment bi ngay war a am pour werante jëlal sa jàng salaatul fatiha ki sëriñam doy du werante bu la sëriñ kër si doy waxal ci sëriñ kër cëram na mu toll lu ci des bu ñu waxee ca keneen nga bañ ca sànni kàddu gu ñaaw nga maandu rek noppi waaw boo jugee rek gëstu waxtaanu sëriñ kër déglu ko après rek fay sa rajo noppal sa bopp benn bàkkaar du la ci fekk ku Baye Niass doyit defal noonu rek déglul waxtaanu Baye soo paree rek nga fay sa rajo waaw soo paree fay sa rajo benn bàkkaar du la ca fekk ku Cheikh El Hadji doy noonu ku Cheikh El Hadji Oumar doy noonu ku sëñ Abbas Sall doy noonu ku Thierno Seydou Nour Tall doy noonu waaye ku ca dugg nag di ca wax lu mu xamul mi ngi tooñ te boo ca duggee di tooñ bu ñu la dogee ca tarixe bi yaa tooñ sa bopp loolu moo tax Cheikh Tijani bëggul caaxaan bëggul taalibe buy wax lu dul dëgg bëggul taalibe buy def lu dul yoon waaye la mu gën a bañati mooy taalibe buy diingat waliyu tariqa bi moom la gën a bañati kooku daf lay dog ci wérdi bi sans pour autant sax mu lay mayaat deuxième sens waaw looloo tax wëliyu tariqa bi ñoom ñu ngay dund ci sixième station Barzak bi ñu tuddee al anwaar al firdaws station bu neex la station bu neex la amul lu fa amul looy xalaat rek am na fa hélicoptère argentin yi foofu lay joge mooy yi nga xam ni en argent la ñu ko defaree ay hélicoptère yoo xam ni en argent la ñu ko defaree dañuy briller nga gis dañ da nga ciy yéeg di ko piloter te xoolal yàlla na muy def eh, ci xam-xamu nit da ngay gis ko dund ci monde shahada masul xam na ni piloter hélicoptère nga dem ca Barzak eh, Cheikh Tijani ak ci sa sixième station ba di Al Anwar Al Firdaws nga fekk ko fa muy piloter hélicoptère waaw tiim tiim dex gu rafet ga fa nekk Eh, di dawal hélicoptère am su paree ñëw gaare xurul ay nit yi teeru ko tegal ko platam mu commencé jël fourchette di lekk te fekk na ci àdduna ba muy dund ko pauvre la woon ndeysaan waaye xool richesse boobu mu am foofu looloo tax adduna du lu éternel comme du éternel nag ñu dimbali sunu ruuxu dimbali suñu bopp ba li ñuy fekki ëllëg nekk lu gën ci ñun lu am solo la waaye sixième station ba mooy an al anwaar al wala yu tariqa bi ñoo fay dund soo demee ci septième station bi moom la tuddee tuddee albishril uluf xutbu yi ñoo fay dund albishril uluf xutbu yi ñoo fay dund soo demee ñi fa dëkk mooy bu yi dund ci tariqa bi cheikh alhaaji omar cheikh alhaaji malik ña ñoo am sëriñ babacar gaay tariqa bi cheikh ibrahima ñas kawlax yu cheikh abbas sall ñëpp ñi nga xam ni ñooy ngandu tariqa bi ba ca ñoom Seydi Aliou Harachim euh, ñoom Mouhamad Damrayu ñoom Sidi Ahmed Rayahi ñoom Mouhamadul Qaali ñoom Seydi Ahmed Cherif di Mouhamadul Habib ak ñu dul jeex Cheikh Aliou Tamasini ñoo xam ni tey buñ leen doon lim duñ fi jóg ñooñu ñëpp nga déggoon seen seen seen melokaan ak seen xaqiqa ci Cheikh Tijani ci béréb boobu la ñuy dund ci béréb boobu la ñuy dund station dàq ko albishril uluf xutbu yi fa la ñuy dund fa la ñuy dund dund gu kenn mënul nettali waaw su doon wax ni ñii ñooy patron patron àdduna boo demee foofu da nga naan ñii ñooy patron barza parce que kenn ku nekk sa immeuble suñ ko doon natt ak suñu àdduna bii dafay mel na àdduna bii benn néeg la ci sa biir immeuble waaye buñ doon natt it fa sa guddaayu immeuble toll moo gën a sore World Trade Center kenn xamul lan la ñu fay bite ñoom ak ñenn ci yonent yi nga xam ni dañu préféré Cheikh Tijani jox leen fa kër waaw comme yonent yàlla Insa am na fa kër waaw yonent yàlla Insa am na fa kër yonent yàlla Ibrahima am na fa kër ñenn ci saalihiin yi Qadir am na fa kër Zulqarnayn mi ñu tuddee Alexandre le Grand am na fa kër. waaw ak ñu dul jeex du xaaj ñoom ñëpp ñuy dund ci station boobu di Al Bishril Uluf nekk ak xutbu yi ñu nekk en cohabitation di dund dund gu kenn xamul lan la ci wàllu neexit huitième station bi nga xam ni mooy kër Cheikh Tijani foofu ca Barzakam mooy almadinatu nuur moo moom la ko këru leer gi almadinatu nuur mooy kër Cheikh Tijani Chérif ca biir Barzakam di Barzakul Maktoum waaw gis nga lii yëpp ma limal leen doole ko ci ci première bi di almaarul ifaya nga xam ni fa la soppe yi di dëkk ak deuxième station bi di al uruful baqiya nga xam ni ñi amoon yéen jël wér di bi fa la ñuy dëkk troisième station bi di al qistil maaruf nga xam ni ñi jokkoo woon ci mu xaddam boo xam ne amul woon ndigal waaye teewul ñi ngi doon góorgóorlu ci tarixa bi fa la ñuy dëkk ak quatrième station bi di al ruhbaniyatu nga xam ni ñi jël wérdi bi fa la ñuy dëkk cinquième station bi di alfatahul miftah nga xam ni ñuy dund ci tarixa Cheikh Tijani Chérif di wér di di wasifa ci mbooloo fa la ñuy dëkk ak sixième station bi di al anwar al firdaws nga xam ni waliyu tarixa bi fa la ñuy dëkk ak septième station bi di al bishril uluf nga xam ni xutbu yi fa la ñuy dëkk ba ci huitième station bi di al madinatu nuur nga xam ni mooy kër Cheikh Tijani Chérif lii yëpp ci benn clôture la nekk benn clôture la nekk clôture boo xam ni bu rëy la ensemble clôture ba yépp moom la ñu tuddee barzaqul maktum moo nekk ca monde baatin yàlla defal ko Cheikh Tijani Chérif ci grade mu yiw Cheikh Tijani terale ko ay taalibeem yi fa la taalibeem yi di dund dund ba nag eh, du dund du dund yowmal qiyaam maanaa du bàyyi ba dem yowmal qiyaam jóge fa ñu àtte nga fay soogay dem déedéet dund ba mooy képp kuy taalibeem bu jël wér de mu nangul la boo génnee àdduna doo am deux heures de temps sa bàmmeel te jël si wuñ la yóbbu la foofu waaw preuve bu leer naññ ni mi di laa ci am preuve bu leer naññ ni mi di laa ci am képp kuy taalibe Cheikh Tijani Chérif ak ci këru diine boo mënta jokk ci tariqa bi ñu nangul la soo génnee àdduna doo passé deux heures de temps sa bàmmeel te jël si wuñ la yóbbu la ci benn ci station yi ma tudd doore première station ba huitième station ndax gis nga huitième station bi ñuy tuddee almadinatu nuur nga xam ni mooy kër Cheikh ti pourtant léeg-léeg nga fekk fa koo xam ni mi ngi waroon dund ci almaarul ifaaya ndax soppe rek kër Cheikh la ko neex lay jël dugal la fa nga fekk fa koo xam ni ma nga waroon dund ca deuxième station ba ndax jëlul woon wér di yéene rek la amoon mu waroon dund ca al uruful baaqiya Cheikh jël ko yóbbu ko ca almadinatu nuur léeg-léeg nga fekk fa ku waroon dund ca alqistil maaruf nga xam ni mu ci mu xaddam bi mu jokk kooku amul woon ndigal joxe wérdi bi teewul cheikh jël taalibe boobu yóbbu ko ca am Madinatu Nuur moo tax xutbu yi nuy tudd nga xam ni ñoom seen bérébub dëkkuwaay sax albishirul uluf la gis nga ñoom ñëpp c'est très ñu nekk ci albishirul uluf soo demee toujours yaa ngi leen di fekk ca al Madinatu Nuur ndax kër googu ni tolluwaayu illi yii na mel la mel ni rafetaayu illi yiin mel la mel lépp nga fa jardin de luxe ba lépp nga fa Cheikh Tijani Chérif buy présider yenn gàmmu yi ndax danay ñëw danay ñëw lu bari di dem ci gàmmu yi ni fa yonent bi di demee yonent bi day ñëw ci guddi yi ñu koy la moo tax ndeysaan ma yërëm ñi ñiy wax naan gàmmu yi bidaa la ma ni yéen gàmmu yi bidaa la te yonent bi di ñëw waaw kooku kat mu ngi may bëgg jaaxal moo tax na nit ñi góor góorgóorluwaat ci course tuuti te am kilifa moo gën waaye da ngay jàng téere bu weex rek commencé di wax te fekk li ngay wax xamuloo ci dara waaw yërëm nit léeg-léeg nga dégg koy critiquer gàmmu gàmmu bi daal la ma ni gàmmu bi daal la te yonent bi di ci ñëw waaye nañu laajat waaye léegi nag ku ni ñëwu ci kooku yow sa xalaat nga wax rek man xam naa ni mi ngi ci ñëw yonent bi dafay ñëw ci gàmmu gi ànd ak ñamuy war a àndal su ko neexee mu ànd ak saahaba yi su ko neexee mu ànd ak yeneen yonent ñëw ci Tijani Chérif gàmm gu ñu def te fekk na ci guddi ci guddi yonent bi la ñu ko defe ka kay def di taalibeem doyloo ko même bu doon une minute wala deux minutes Cheikh Tijani dana ca teew dana ñëw ca gàmmu ga teew bu fay ñëw ma ngay jóge ca almadinatu nuur almadinatu nuur daan naa leen nettali benn témoignage bu émouvant bu émouvant sax xam nga lu tax mu émouvant ki ma ko nettali génn na àdduna ki ma ko nettali génn na àdduna dama dem dama dem di ziyaare dem di ziyaare ca barzak barzak dañ fay ziyaare ki defe ni mënul dem ziyaare fa xëy na dafa amul pouvoir bu ko fa yóbbu bi ma demee di ziyaare fekk fa benn góor góor gee ngi santoon Diallo xam nañ ko fii ci Ndar taalibe la woon ci kenn ci mu xaddamu sëriñ Babacar Sy ma fekk fa góor gi ni ma waaw man démb de fii ci barzak góor gi Tidiane bu farlu la woon mu ni ma démb fii ci barzak ma ni ko waaw mu ni ma dafa am lu ma fi jaaxal ma ni ko lan la mu ni ma dama daan gis bu guddee gàmmu jotee ñu ni jot na ci àdduna Cheikh Tijani daf fi jóge ak une très forte délégation ma gis mu dem waaye ma gis ay 5 heures du matin su jotee ci senegal rek ma gis mu dellu si waat mu ni waaye démb ma gis mu dem dellu si waatul ba trois heures jot trois heures jot mu ni ma te xaal bi mu fi génn yéeme na ma laaj ko nan la xaal bi mel mu ni ma ki ma koy nettali de ma nga barsax ki ma wax loolu ma nga barsax mu ni ma dañu toog ba yàgg nii barsaxul maktoum rek mu ni ma ma gis malaayika yi génn gàddu xeej yu weex yi porte bi ñu daawul tëjji ñu tëjji ko ndax ndax boo demee ca Madinatu Nuur am na porte boo xam ne ñaari battant la kenn du ko tëjji lu dul Cheikh Tijani di jàll ñëpp ci benn battant bi la ñuy jaare bu Cheikh Tijani dee jàll ak manto beeg valeur manto bi mooy tax malaayika yi tëjji porte bi nga xam ne ñaari battant la am góor gi jàll moomu ni ma ma taxaw ba yàgg rek gis nu tëjji ñaari battant yi malaayika yi nga taxaw ak xaal ba ñu ni Cheikh Tijani Chérif mooy jàll ma nga gàddu xeej ya moom ñoom malaayika yi kenn ku nekk nga sampu xeej ba sa kanam mu ni jëkki saa ma gis ma gis Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani muy romb mu xaddam ya topp ko mu xaddam ya topp ko mu ni ma xàmme naa ci Cheikh El Hadji Oumar xàmme naa ci Maodo xàmme naa ci Serigne Babacar xàmme naa ci Baye xàmme naa ca Cheikh Abbas Sall xàmme naa ca Thierno Seydou Nourou Tall xàmme naa ca Seydi Harachim di Aliou mu ni ma ñu topp ko Cheikh ngay waaxu ñeneen wëli yaa nga topp ci ginnaaw mu ni man maa ngi sëpp maa ngi sëpp ci vitrine bi ci fenêtre bi ci vitrine bi nii di xool maa ngi laaj mu ni waaw fu Cheikh Tijani jëm nii ak xaal bi waaye mu ni ma kenn du Cheikh Tijani ci xaal jékki saa rek mu gestu sànni ma benn kayit mu ni ma ma liir kayit bi mu ni ma mu ci mu ngi ca bind ni maa ngi jëm ca gàmmu diw daal di tudd benn nit fii ci Sénégal buy gàmm Cheikh Tijani bind ca kayit ba ni maa ngi jëm ca gàmmu diw mu ni ma waaye lu ma jaaxal moom néew bi moo ma ko wax mu ni ma li ma jaaxal mooy ma toog di xaar kañ la ñuy wàññeeku kañ la ñuy wàññeeku gisaatuma leen cinq heures du matin jot ci senegal gisuma leen ba trois heures passé ma soogay gis délégation bi di dugg siwaat ci ci Barzakul Maktoum ma laaj ni naaje nañu di mu ni bi ma waxee loolu Thierno Seydou Nourou Tall jege si ma ni ma dafa am luñ doon def ca gàmmu ga léegi nag moom néew bi bi ñuy waxtaan mu laaj ma ni lan lañ fa doon def ma ni que dañ fa doon wasifa bi ñu jullee tisbaar ba pare Cheikh Tijani doon présider wasifa ba ba wasifa ba jeex muy soogay dellu si waat ma ni que lii moo indi mu ñëw trois heures ndeysaan ñu waxtaan ci lu kenn xamul lan waaye pour wax la ni yooyu yëpp ay dund ay dund yu réel la na nit ñi xam ni ki dund ci monde shahada fii ci adduna bu fi jógee am na beneen dund bu koy xaar léegi nag moom mooy choisir la muy choisir mooy ndax mu am dund bu neex foofu wala mu am dund bu naqadi moom mooy choisir waaye dund yi moo am ca barzak madinatu nuur boobu nga xam ni fa la Cheikh Tijani Chérif dëkk fa la ñuy daje soo demee barzakul maktum boo génnee àdduna yàlla dogal nga bokk ci taalibe Cheikh Tijani Chérif yi ba ñu recueillir la nangul la ba nga dugg barzakul maktum ca aljana lium yaram ba ak huit station ya huit station ya benn boo ca dugg am na haut-parleur boo xam ni ci wàllu lumière ma nga fa waaye ca Madinatu Nuur fa la ñuy wasifa mooy kër Cheikh Tijani barzaq da ngay ñëw toog barzaqul maktum tëdd ci ay lal yoo xam ne ñoo dàq suñu duubu lii yi ñu am fii ci senegal ñu rangé leen la ca ay vêtements de soie ay yëre yoo xam ne soie yu rafet la couleur boo bëgg am na fa warul ay nit ñi rangé leen ko ci armoir yoo xam ne moo dàq yi ñu am fii ci senegal lépp luy neexit nu nu nu tegal la ko fa jàmm am fa lumière lumière lumière bi 24 heures sur 24 muy rayonné te du fay salaaman salaaman rek ngay gis jeu de lumière yi di tàkk di fay di bindi salaaman salaam nga nekk fa loo soxlu ci wàllu neexit nga lekk bu sangu jotee nga dugg ci salle de bain yi tijji sachet d'eau bi sas doo ndox moo xam ni bu wàccee sa kaw rek nga xam ni du ndox mii nu am fii sunu robinet yi waaw ndax neex sangu boo xam ni boo paree yaa ngi seetu ci dënn hurul ay nit yi ci ngay seetoo waaw di ci gis sa bopp nii jël peñe peñe sa karaw karaw yu rafet waaw sa yaram dara du la metti su benn waxtu jotee rek nga dégg ci ci micro bi ñu joxe ñu joxe ordre ni ñëw leen nu delloo njukkal Cheikh Tijani ñëw leen nu delloo njukkal Cheikh Tijani Chérif wax ko ci arab ndeysaan benn mbokk ak may laaj ci internet bi ni ma Cheikh buy wax ak yéen ci lan lay wax ci wolof walla ci arab ma ni ko xamuloo Cheikh lang yëpp la dégg Cheikh léeg mu ñëw wax ak yow ci wolof léeg mu ñëw wax ak yow ci arab mais gis nga du nekk arab yi nun nu xam de yeneen arab la ñiy dem xadaratul ilaahi bi yoobu yëpp xam nañu li may wax foofu ngay dem pour dégg ko yeneen lang la waaw arab la mais ci beneen kàllaama boo xam ni naawu jàpp ko te kenn du ko firi fii booy dem xadaratul ilaahi ba langage boobu lañ fay utiliser ñi fay dem ñëpp dégg nañ ko boobu la Cheikh Tijani di waxee bu ñëwee fii waxee arabe waxee wolof waxee français léeg mu wax en anglais léeg-léeg wax en allemand ndax langue yëpp la dégg langue yëpp la dégg waaw ñi xam tarbiya xam salaatul fatiha xam nañu ni langue yëpp ñu ngi ko def ci 70 salaatul fatiha bu ànd ak ismullahil azam di téeméeril turu yàlla waaw fu mu ne boo ko dikkaroon amul langue boo dootul dégg waaw yëpp ngay dégg. bu la ci neex wax bu la ci neex noppi waaye bu dee fii nu tuddee ko karaama te du karaama pas-pas rek la waaye gis nga bu waxtu wasifa jotee ñu yëgle ñu yëgle wasifa bi ñu fay def nag benn wasifa ba la mooy wasifa ngoon bi waaw boobu mooy bu ñëpp war a fekke suba gi di nga dégg muy riir di nga dégg wasifa ba di riir comme waxtu bi ñuy def suba gi fii waaye bu wasifa bi di riir euh, réalité ba mooy ngoon ga la dafay mel na enregistrement sonore bu ñu tegaat moo tax bu dee wasifa suba ba ruux yi ñoo koy fekke maanaam boo tëddoon salal di nelaw day mel ni yaa ngi tëdd di nelaw di dal lu dallu doonte sonnoo ndax foofu coono amu fa waaye sa ruux mi ngi dem présider bu zikr ngay sentir ni wasifa bi maanaa day mel na bu doon fii ci réew mi dañuy wax ni yaa ngi tëdd di ko gént wasifa suba ba barzaqul maktoum noonu la mel mais ngoon ba dangay ngay da ngay sol da ngay sol sa sa soie sa yére soie dem ba béréb ba ca jardin ba toog nu lal basang ba basang baa nga yaatu ba kenn xamul lan la napp tappi brocart bu rafet waaw tappi brocart bu rafet ñu lal ko bu ñu ko lale nu tàllal malaan ba malaan boobu mooy lan mooy kaala Cheikh Tijani Chérif ba mu yore woon fii ci monde shahada moom la nu ful moom la nu ful ba mu nekk malaanu lumière bu rafet nu lal ko ci diggu madinatu nuur di béréb bu barzaqam bu ñu toogee Cheikh El Hadji mii fii ci Sénégal mooy joxe ndigal moo tax Maodo it kenn xamu ko ndeysaan mooy joxe ndigal nu wasifa suñu paree mooy joxe ndigal ñu ñaan wala moom mu ñaan ku ci ñaan ci barke yonent bi barke Cheikh Tijani Chérif rek ngay ñaane waaw béréb dàq ko moo tax ma leen doon wax waaja waxoon ni tarixa fii la yam ma ni ko waxal sa bos rek te bay te génn ñu ci ñun kat ñu ngi wasifa ca barzaqul maktum waaw kon gis nga degré spirituel bi taalibe bu nekk doore ko ci man war na ci góor góorgóorlu ndax dafa yombul dafa yombul nga dund ci àdduna ba am yenn cër yi ci wàllu bi yàlla te jële ko ci kenn muy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani dafa yombul moo tax nañu góor góorlu ndax lii ma di leen wax am na ñeneen ñoo xam ne ñu nga ca tuum rànke bu kenn xamul lan la barzak dangay dégg kuy jooy di yuuxu ñu di ko mbugal mbugal yu la kenn mënul nettali te dara tegu ko ko lu dul bàyyi charte yi yàlla tëral dugg ci lu neex bakkanam wala dara tegu ko ko lu dul fekk wëli yoo xam ni duñu sa moroom nga di leen compte waaw loolu moo leen koy indil te comme ñu bari xamuñu kañ lañ fiy jóge ndax ñi xam kañ lañ fiy jóge ñoo dàq jaamu yàlla ñëpp moo tax ma ni bàyyi nanu bàyyi di généraliser yàlla kenn ku nekk am na lu mu ko may ku mu may lu mu mayul moroomam bul ni lii kenn mënu ko rek ni ñëpp mënuñu ko waaw Baye Niass daan na wax ni ku wax nangam mënuñu ko li gën a rafet mooy mu ni nangam man mënuma ko waaw waaye nag ñëpp mënuñu ko déedéet waaw ñëpp mënuñu ko déedéet te loolu yëpp lu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani fonk pour taalibe bi su nekkee tariqaam muy bàyyi xel muy bàyyi xel lenn li ci wàllub yàlla maanaam mooy mu fexe ba respecté julli respecté woor respecte génne azaka bu doon kaaba gaa ngi ca këram bu ko mënee wéram may ko ko ak mooy mu dem mu dem aji ji màkk waaw waaye nag boo respecté condition yëpp ba génn àdduna si ngay soog a comprendre ni sa sang bii di Cheikh Tijani Chérif nga joxoon ko sa bopp gëm ka ndekete lu mu tële ci wàll yàlla amul barzaq direct nga jëm nekk barzaqul maktum nekk faak neexit bu la kenn xamul lan la bu la kenn xamul lan la ba pare xam nga lu gën a neex cohabitation bi fa am mooy ànd bi fa am ak taar bi fa am ak neexit bi fa am comme comme ñun nit ñuy tooñante fii ci monde shahada diggante nit ak xaritam romb nuyante dal di lëngoo lu lu dàq loolu moo fa am lu dàq loolu moo fa am ndeysaan kenn xamul lan la gis nga maa leen di nettali benn benn baat bu am solo ndeysaan réalité bu ndax dafa rafet mës naa ko wax ci waxtaan dafa rafet sëriñ Mansour si sëriñ Mansour si mi nu tuddee woon borom daara ji waaw te ñu naan borom daara yi ndeysaan eh, bi mu génnee àdduna bi mu génnee àdduna moom sëriñ Mansour si ñu denc ko bi mu ñëwee barzakul maktoum dafa agsi ñi nga xamee ne ñooy shérif surtout Cheikh Tijani yi surtout Cheikh Tijani yi ñoo ko teeru ñi nga xamee ni ay shérif lañu mooy descendant cheikh yi nekkoon diggante fas diggante Aynu Madi ñoo ko teeru muy mbooloo mu bare Mouhamad Damra yi jiite leen ak ñi mu am fii ci senegal ndeysaan ñu baax ña xut bu yéeg sëriñ Babacar ak yeneen mbokk ya ndeysaan bi ñu ñëwee ñu teeru sëriñ Mansour si bi ñu ko teeroo Mouhamad Damra yu Mouhamad Damra yu wax ko ni ko euh, ni ngay déchiffrer alxuraan bi nga nekkee ci monde shahada àdduna ak di tafsir alquran lu neex ruux yëpp la firil nu sóoratu yaasin waaw ni ko firil ni sóoratu yaasin sëriñ Mansour toog ndeysaan ak targa kenn du yàlla toog ak targa jël sóoratu yaasin moom la fa njëkk toj fiiri sóoratu yaasin wal quraanil hakim ñëpp kontaan ndeysaan mu pare nu jox jox naa leen ko comme cadeau ba ma jëlee ba ma jëlee àdduna ndeysaan ñëpp bég yàlla xam na ko waaw wallaay ndeysaan bis dàqu ko woon ñëpp bég mu jël sóoratu yaasin moom Serigne Mansour toj ko fa ca Barzak laa wax bi mu génnee àdduna fekk na fii ñu ngi koy dëj fii ci tawaawa Tiwaawan ma nga ca Barzak di toj alquran waaw toj sóoratu ba shérif yëpp kontaan ndax Mouhamad Deme Rayu moo ko ñaanoon mu pare ni lii mooy seen cadeau bi ma leen indaaleel jëlee ko ca àdduna ndeysaan ñëpp kontaan yàlla xam na ko ku ne nekk sa pale ak cohabitation ba moo tax ndeysaan xam naa ni sax <laughs> wallaay ndeysaan du jeex waaw yafa xew yëpp kenn mënu ko nettali waaw yafa xew yëpp kenn mënu ko nettali ndeysaan moo tax benn waay benn waay a ngi benn commentaire am ci internet waaw yàgg na jamono yële. siiwur ba yàgg nii ni laaj ndax Seydi Mouhamed El Cheikh li muy wax moo ko tey ma ni moo ko tay de ndeysaan waaw ma moo ko tey xam nga lu tax ko tey daf ka xam waaw daf ka xam te Cheikh Tijani Chérif daf ko ko wax mu gis ko loolu rek la waaw pour wax la ni nit ñi ndekkete ñoom am na sa dimension yu ñu àggul ñoom xam naa dañuy defe nii rek ku xëy sa buntu kër gii rek ngay gis wala sa néeg bii nga fanaan rek ngay janool walla wala euh, sa liggéeyukaay rek ngay ngay gis ordinateur yi ma ni ñëpp yamuñu am na ñoo xam ne bu ñu xëyee bu ñu toogoon fii di ndékki ña ngay dégg ka ca barzak di wax am na ñoo xam ne bu ñu xëyee bu ñu toogee fii di waxtaan ak nit ñi diggante nit ñi ñu toogal ak nitu barzak yi kenn doxul seen diggante moo tax ñëpp yamuñu waaye lu nekk rek lu nekk rek nañu ko d'accord nag ni yàlla noonu la def xam-xam daf ko séddale kenn ku nekk ak la nga ca àttan euh, message boobu rek nga mën a véhiculer waaye nun de lii nu di leen nettali lu nu Cheikh dundal la may nu it pouvoir bu tollook nu mën leen ko nettali pour man ak yéen ñëpp ay taalibe lañu ñu mën ca jëriñoo nan lañ cay jëriñoo mooy xam ni li nu am du caaxaan waaw ni li nu am du caaxaan ñu teeku waaw nanu xam ni li nu am du caaxaan nu teeku maa ngi nag remercier ndeysaan ñu baax ñëpp yàlla xam na ko nekk ci internet di ay taalibe Cheikh ku Chérif ba bëccëg ñu di ma ñaanal waaw sama yaayu bopp soxna Niass Seydi Mbargane ndeysaan Abdourahman al Isaac ndeysaan ñu bari saan ñoo xam ni fu ñu toll rek eh, ñi ngi may envoyé message di ma ñaanal guddi ak bëccëg ma kontaan loolu ci ñoom ndeysaan waaw góor gi Youssouf ak ñu bari ñoo xam ne bu ma leen doon lim oustaz Bachir du jeex waaw suñuy kóllëre bopp lañu te fu ñu toll rek yàlla xam na ni ñi ngi ñuy ñaanal ndeysaan eh, fu ñu toll di bëgg yàlla di leen dimbali eh, ba ñuy yokkute ñu am yokkute ci tariqa bi am yokkute ci diine ji loolu rek lu seen mébat ñu ñuy ñaanal ñun tam ñu di leen ñaanal man nee naa leen ñaanu taalibe cheikh yooyu may jot par internet rek doyoon na man kay mission bi neex na ci man ndax lu tax mu neex taalibe cheikh Tijani Chérif yi toog di ma ñaanal ci internet rek doyoon na waaw waaw ndax ñi may ñaanal kenn mësuma cee gis nii ci shahada dañu déggante rek waaye ñu kontaan xam ni li may wax ñoo ko bokk ñu toog di ma ñaanal loolu rek doyoon na moo tax ñi may ñaanal ñëpp yàlla na leen lépp luñ ma ñaanal daal yàlla nañ ko bokk zahiratan wa batinan waaw nun comme ni ma ko waxee rek ci mission tariqa bi la ñu nekk te ci la ñuy ñaan abadan nu di ci des ci barke Cheikh Tijani Chérif lu dul taalibe woote wu ko taalibe rek laa woote waaw taalibe Cheikh Tijani Chérif moom sañ naa ko woote woote bi mooy lan moom mooy moom laay ñaan yàlla nekk abadan ñaanuma lu ko ëpp yàlla naa des di nekk taalibe abadan lil abidin mu nangul ma képp ku bëgg yi nekk taalibe Cheikh Tijani Chérif ci barkeem yàlla na la ko defal zahiratan wa baatinan loolu rek la ñuy woote woote ñu leneen lu ci des nag lu ñu Cheikh Tijani Chérif baaxee may ñu ndigal sant ñu ñu wax ko di ñu ko wax ñi ñu ko war a wax kon lii yëpp lu ñu bokk la ci barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ne ñuy fexe ñuy góorgóorlu ci tariqaam di góorgóorlu ci wérdam xam ni teraanga bii li ñu ci yëg ci wàllu ruuxu lu tuuti la fii ci àdduna la ñu dencal ca barzak moo ko ëpp te loolu yëpp ci barkeem la kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm daanu dellu si incha allah fan yi ci yeneen waxtaan yu jëm ci wàllu barzaq ak yu jëm ci wàllu xadaratul ilahiya ba ak ci yenn lumière yi nga xam ni Cheikh Tijani Chérif bëgg na taalibe yi jot ci di leen ñaanal ñun ak yéen ñëpp ñu àndandoo mu nangul nu sunu taalibe def ñu ñu nekk taalibeem xàqan may nu nuy dund ak moom zahiratan wa batinan mu may ñuy ànd ak moom àndu abadan ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu